dara mais journée am ça va. waaw grand frère lépp si loolu nag. maa ngi si jàmm sant yàlla. waaw bi nga bëggee daan bële gisuma la. waaw dama noonu sama rugu quoi. waaw mais tey sama mbokk mooy bëre sama xarit sama lonko. waaw muy Ndiasse Dóor di ko ñaanal yàlla may ko ndam gaan jël bu set bi ci moom benn wérante. ngeen waaw gaan xam nañ ko xamul laamu nii rek. waaw mais maanaam ku ñu ni lañ lañ gën a xam quoi. waaw te xam nañ ñu ne si moom xam nañ tamit xam la waaw tolluwaayam bu baax te gëm naa booy susu changé tur def Abou Ndiassé numéro 2. waaw lépp jàmm gën la rek lépp si jàmm gën la waaw loolu mooy lu gën ko waa waaw. wàccaay foo toll. pare naa. digganteeg mag. waaw maam Naaru Sogas. maam maam Naaru maam Naaru. maam Naaru. waaw. dugal na fa. ñëpp tey seen ba gis nañu ñu demee de. waaw gis nañu ñu demee de. ay si booy de. waaw yow loolu 18 yàggul di ko ñaanal dal ak wér quoi. waaw di ko ñaanal sama bopp di ko ñaanal ñëpp. ba jour bi quoi. séntu nañ Liss Ndiago ñëw sampu jaaga moog maam naaru. maanaam moom day xeex bari day bëre waaw loolu ma am envie pour bëre ak moom man kuy xeex di bëre kooku laay wër quoi. dafa mel ni duggoon na jàmm gën duggaat jàmm gën mi ngi fay duggaat di. waaw sant yàlla rek. bu si sant yàlla. dugg si sant yàlla rek. sant yàlla bu baax. léegi dugg ma si Sida Sida daan ko. waaw jeex na maanaam làmb rek. waaw. Liss Ndiago si bi nii. waaw ñun ay xale lañ nañ xaar lépp si ñun nañ xaar lépp. waaw yow bëre door lañ wax waaw damay xeex damay bëre lépp laay def lépp dama mën a lu ma gën a ne si combat yi moom maanaam mom day xeex day bëre loolu moom am envie pour bëre ak moom. walla dina leer na dinaa ñëw ñu waxtaan. sëñ Fallou. ceeb bi li muy def ay plastique la xoolal. daa sant si kaw moom neexoo. xoolal xoolal xoolal lii sant na si kaw moom neexoo. gi nga ni mu sant gi nga casquette bi gi nga sac bi waatal waatal ay plastique mil 1200. lii sax sa waay plastique 1200 1200. kii moo suñu njëriñ yow. xoolal doo moroom kii doo moroom. man plastique laa xam ne. kii doo moroom barki dañu ko foosee xoolal ñun ñëpp dañu ko xees bi ñun li lay xam. laa xam. siir bu jaamu nga sax Palais laa xam. nga daa sànce daa sànce. jaamu nga xam ne ay tërënd ay paas kii moom maa ngi nga dem xam na